ñu dugg ci beneen point bu am solo mooy président Bassirou Diomaye Diakhar Faye père de la nation dafa wax lu lu am solo nee na mu ñëwee fekku dara ci kees yi. wax na lay gouverner fu muy jëlee koppar bi. ñëw na ci réew mi. non dana fekkul dara ci ci kees yi. non bu ma déggee dama rus. da nga rus. non dama rus. jegeel trop. Bassirou Diomaye Faye dafa def njombe de. njombe. ñëw na ci réew mi fekkuma fa dara. non déedéet loolu loolu waxuwul. ah bu ko fekkul nag. mais waxuwul. waxuwul. non waxuwul. <laughs> oh. el dafa daanu. dafa daanu. non président dafa daanu. <laughs> gis nga gis nga laa caisse noire wala li ñuy woowee les fonds secrets wala les fonds politiques. non bul yaakaar ni dañ la koy jox nga dugal ko sa coffre non ça ne se passe pas comme ça. na lay na lay demee. lan lay demee xam nga assemblée nationale dafa am caisse noire. Hmm. dégg nga mais président assemblée nationale chaque mois lañ ko koy jox cinquante millions. yaa ngi dégg ah. ay c'est ay six cent millions la. mais 600 millions ils ont ñu jour ils malade jox non dañ koy approvisionné Vous palais c'est tous les trois mois. Vous hmm. primature c'est tous les trois mois. parce que hmm. comme urgence un mois un mois non trois mois. janvier mars.

Je nga journalistes <laughs> des consommateurs il ne peut pas rebondir sur des questions comme ça. est-ce que c'est le principe la règle, nous organisons les organiser. non te du moment pour répondre aux questions. oui Je vais répondre. yow bu am nga et da ngay relancer la question mais est-ce que ña fa toogoon am nañ xam-xam. est-ce que autorisé na d'ailleurs. non non Voilà. Mané. d'abord format mais deuxièmement

Macky Sall defoon na erreur boobu ñiitam ñu ngi def erreur boobu Macky Sall ay ay nitam bu ñëwee dañoo ne ñoom kees yi moo vide. ñu leen kees du vide. kees kees de du wax. non kees du vide. ah kees du vide. déedéet kees au jour le jour lañ koy alimenter nan lay vider. ok. ne kees de l'État ne peut pas être vide au jour le jour lañ koy alimenter douane day andi aéroport andi yaa ngi dégg.

<coughs> moo tax mais yow booy tànn journaliste doo tànn les sachants gars yi nga xam ne dañoo dañoo dañoo burlenge vingt cinq ans d'expérience dund lu ne yooyu lañuy xool foofu la ñu xoolee critère rekk yow dëgg-dëgg président da nga bëgg jàkkaarloo ak journaliste yi moo tax man ma ne Sonko nañ moo ko jox nañ jox Sonko nga jàkkaarloo Sonko da ndaanaan la nañ ma jox Sonko D'accord. Dans une interview en direct Il y a mon face-to-face. Mais en fait, non Oui, le, le... Il maîtrise les questions. Oui. Nous sommes DPG, nous sommes DPG, nous sommes en direct sur toutes les plateformes.